asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen ñëpp ñu ngi leen a nuyu ku nekk sa ak sa santa di leen ñëwalaat si beneen programme ak si beneen bésit fas yéene leen a ñëwal si xew-xewi jamono ak xew-xewi dëkk bi waaw xew-xewi jamono ak xew-xewi dëkk bi ñu fas leen see ñëwee réeréwu leen mbir ne am na semaine monde bu rombanale am na yëngu bu amoon fooñi si diggante MFDC Casamance sar sar mi ki nuyu naa la bu baax tey rek maa ngi wax anti Sarr sa affaire MFDC forces yi ak Senegalese forces amoon nañ yëngu-yëngu buñ amoon fële si fooñi mu nekkoon altine bu romb nale altine bi moo delluwaat barki démb mu nekk Ali réeraale leen maa ngi ñëw suma sëriñ réeraale leen suma sëriñ maa ngi ñëw jëri marong nuyu naa suma sëriñ réer leen maa ngi ñëw dinaa fa fekk suma wàlla waaw yëngu-yëngu bi moo barki démb bu moo nekkoon bés bu ay mu mut mooy altine démb juróom-ñeenti fan tey fukki fan soldat yi Sénégal yi ñu téye woon ci Abdou Jammeh ak alkaali karon bi ak beneen waay Alajabi, nuyu naa la maa ngi laa nuyu bu baax a baax a baax di la salon bu mag bi si Angleterre maa ngi laa nuyu bu baax a CID officer buñ stationoon Kanilaay ak beneen doomi fooñi ñu transport leen ñu yóbbu leen buñ leen jëlee ñu fa si fukkeeli fan bi si lañ leen isi buñ leen jëlee ndakaaru ñu delloo si waat leen si biir réew mi fii ñu isi leen kenn xamutoon buñ leen jàppee fuñ nekkoon wala fa soden amu honorable amul ñaasi ak gaay ñu nekk di lijanti di lijanti ba am xibaar ne gaa yi waaw misaay dara dinaa ko ñëw jël si bañ toog ñu dégg ñoom amul ñaasi yi di lijanti bañ am xibaar ñu ne alkaali karon bi ak Abdou Jamme ak ñeneen ak ñeneen ñi ñooñu noonu gars yi dañ leen yóbbu woon Sénégal waaye delloosi nañ leen ñu ngi under custody of the Gambians waaw understand ngeen soo léegi bu ñu waxee loolu ñu ne Sénégal lañ leen yóbbu woon ñu isi leen tey lañ leen isiwaat man doon seetaan vidéo bi ma gis leen ñu isiwaat leen waaye ak lu si munti am buñ leen jëlee ñu yóbbu leen ñu isi leen man lu ma am lu may wax mooy dëgg dëgg dëgg dëgg de suma mbokki APRC yi ñooñu laay waxtaanal suma waxtaan bi lu bari na gars yi APRC yi laa see waxtaanal tey si dëgg dëgg dëgg de ngeen baalal ma tuuti de ma génne airport yi understand bu ñëwee ñu ñëw ñu jël gaa yi ñu export leen ñu yóbbu leen Sénégal tey lañ ñëw tey lañ leen isiwaat fii ci réew mi fii su ma wax bi wax bi nag tey lu si gën a bari suma gars yi APRC yi ñoom lay waxal xam ngeen man fu ma utee ak balal leen ma de am na ku ma kool ma ko am ci loo nekk nag mbaa def loo dara maa ngi Facebook live su ma paree dinaa la call incha allah. lu tax ma ne suma gars yi APRC yi laay waxal man dama utee ak nit yi man. kenn du ma dee dicté nga ne ma alfaa jaaral fii alpha jaaral fële alpha bul dem fii man lu ma neex loolu laa xam ak lu ma góom ne baax na si man loolu laa xam su ma jëlee yoon nag ma jël yoon bi ba ma xam ne nii fu ma jëm moom baaxut it dinaa dellu si waat gannaaw ma xam ne fu ma jëmoon du yoon bu baax nekku right direction lu tax ma wax wax jooju APRC bu ñu defee alliance ak NPP man bokkoon naa si ñu support alliance bi one million times te rusuma koy wax te duma ci delluwaat gannaaw bokkoon naa si ñu support alliance bi one million times du ma ne hundred percent one million percent bokkoon naa si ñu leen supportoon waaye lu supportoon alliance bi rëccu naa ko ba abadan daa iman dootul ñaareelaat façon yi jëf ju bon jii nii duma ko defati façon yi jëf ju bon jii alliance bi lépp loo xam ne nii bokkoon na si lu taxoon ma support ko widduloo naa suma support si alliance bi ba abadan daa iman rëccu lu tax tamit alliance bi ma support ko olof yi nag ñu ne ganaar su déggul kus dina dégg bip ganaar su déggul kus dina dégg a bip Yaya Jammeh waxoon nañu ko ñu déggeer boppa Yaya Jammeh waxoon nañu ko ñu déggeer boppa mu ne ñii nekku njiit yu baax yaa Jammeh mu ne ñii ay njiit yoo xam ne lañ naka la suñ souveraineté sàmmuñ ko respectuñ ko ku leen sànnil karta fii ngeen a toog fii si seen biir dëkk bi fii dinañ leen fi door di lañ leen ñëw ñu fekk leen seen dëkk bi fii ñu rey leen fi comme ay ganaar wax yooyu noonu man Yaya Jammeh waxam yëpp maa ngi ko amee loolu la Yaya waxoon ku bugg a jàmma sànni lal Mama Kandeh loolu la Yaya waxoon mu ne su fekkee ne nii dof-dof lu lañ bañ fexe government bii ñu continé dinañ dee si mbugal dinañ dee si njaam te duñ ci mun dara lutax mané tay nak waxi e- e- gars APRC e tay ñom lay waxal National Assembly mu ngee ñew National Assembly mu ngee ñew bépp doomi APRC bu nekk ci Gambia bi fi bu kenn sanil NPP sa carte bi kenn bum sanil NPP sa carte bi fi so nekkee doomi APRC nga nekk ci dekk bi fi so sanile NPP sa carte bi ya ngee gëna delo Gambia ci boomi njaam yaa ngi yóbbu Gambia gannaaw yaa ngi yaa ngi encourage ñu fekk la si sa biir dëkk ñu téye la ñu door la ba nga bugg a dee ñu arrêté la ñu jël la ñu yóbbu la si beneen dëkk lii musuta am bu aduna sosoo ba tey dippi bu balaa ñoo am indépendant tubaab yi lañ xamee woon lii tubaab yi ñoo doon ñëw Gambie ñu téye suñ maam yi ñu import leen ñu yóbbu leen ñu export leen ñu yóbbu leen si si si bitim rew ñu yóbbu leen bitim rew waye man nak duma ma dé man ñoom bakkar yi ñu andon nekkon si alaw alliance bi ni maa ci si 100 one hundred billion times maa ci si ci si bi dama leen empower won dama andon si support bi pour ñu support baro dama si andon, dafa ma neexoon waaye nag lu ma neexoon ndeke foofu di yoon bi dama juumoon foofu di yoon bi dama juumoon suma vidéo bi képp ku ko munti gis si yaa ko si doomi APRC man maa leen doon toppa fii di dox si suuf di leen encourage di leen encourage di leen wax ne déedéet bokkaleen si alliance bi rek am na maire yu bari dama leen doon toppa di leen wax ne bokkale si alliance bi alliance bi alliance jàmm la alliance naataange la alliance yërmande waaye alliance xalaku la alliance dellu gannaaw la alliance bii nii alliance tas réew la alliance bii nii alliance lack of moo nekk si alliance bi local election bi mu ngee ñëw national assembly parliamentarians yi ñii suñ dominate siit yi si dëkk bi fii suñ dominété si si si dëkk bi fii loi yu ñoo def fii dinañ gën a empower senegal yi si ñu ñëw fekk si ñu suñ biir dëkk bi ñu ñoo jàpp fii di ñu yóbbu Sénégal waaw dinañu gën a ñëw di ñu fekk si biir dëkk bi fii di ñu jàpp di ñu yóbbu Sénégal képp koo xam ne doomi APRC nga nga nekk genuine supporter of APRC gars yi nag wax nañ ko de ñu ne ku nanguwut jinne kalifa élif la jinne élif la ñun ñoo bañoon suñ kalifa gi yaaja Jammeh mu élif ñu moo tax it jinne élif nañu ñun ñoo bañoon yaaya jàmme élif ñu lum ñu wax nanguwuñ koy dégga moo tax jinne élif nañu jinne mu ngi ñooy omat fu mu ne nii jinne mu ngi ñooy omat de bu yaayaa waxee man maa génn man maa génn ma def Facebook live ma ne Yaya Jammeh biti yàlla Yaya Jammeh nekkul nit koo xam ne nii nit ku man wax lu bari si Yaya Jammeh waaye si dëgg dëgg dëgg dëgg Yaya maa tuubal di la jéggalu maa ngi laay tuubal di lépp loo ñu waxoon dëgg la amuñ sofi nit man xeexaluma Abdou Jammeh AC Abdou Jammeh waa fooñi la man xeex xeexaluma alkaali karoon bi because of ne alkaali karoon bi foo ñi la dëkk ma dëkk ñoom bi man lu raaytut ànduma ci naka la ñooy toogee suñ doomi réew ñu téye si suñ biir réew ñu téye ñu export leen ñu yóbbu leen waxuma kenn ni di ma fi wax ne balaa ngay dugga live di jom dangay wax parce que affaire yi sécurité lu sensitive la petit yi patata ñii ak crime buñ munti def crime buñ munti def ñun am nañ intelligence yi am nañ immigration am nañ police officers am nañ CID am nañ constitution ci suñ dëkk bi ñu bari dañooy toog hamne ni suñ defee loo xam ne nii warul leen dañ yóbbu ñu ci constitution bi nobody is above the constitution of the land suñ defee loo xam ne nii dafa associé ak rébellion Gambia am na ay loi yu ñu leen war a teg kuñ fi téye yaa ngi associé sa bopp ak terrorisme ak terrorisme am nañ ay loi yoo xam ne nii loi yooyu noonu daf lay daan kuñ téye fii yaa ngi associé sa bopp ak treason yaa ngi associé sa bopp ak treason luwaa am na luwaa si Gambia bi fii boo xam ne luwaa boobu mun naa diil ak yow waaye yaaya ay ñu ay nañu de ñun ñu nekkoon si alliance bi yaaya ay nañu ñun ñoo xam ne nii ñoo nekkoon si alliance bi yaayaa jamme wax naa yaayaa jamme mun nga ko wax lu nekk ba de stupide bu ko waxee Gambia ëppa doole gi yëpp ñu ne Yaya décision bu mu jël c'est bad décision c'est bad décision Yaya Jammeh xam na lu moo def Yaya Jammeh xam na lu moo def Yaya Jammeh xam na ne ko mënut a aar boppam mënut a aar keneen Yaya Jammeh xam na ku amul garanti mënut a garanti keneen ñoom général Badji ñu ngi nii ñoom général Badji ñu ngi nii keneen ku nekk si ñoom kii naka lañ ko waxati beneen maan bi ku tof nii te njool ponkal kooku noonu bu Yaya jame doon dem sax àndutoon ak Yaya Jammeh landing àndutoon ak Yaya Jammeh fii la jógee mu jaaree yooni suuf di dem Mali dem ba Benin jaaree Benin jógee foofu noonu dem Equatorial Guinée am na Equatorial Guinée almost ay six months mënut a gisee ak ñoom Yaya Jammeh am na six months équatorial Guinée mun ta gisee ak ñoom Yaya ba afta si la gisee ak gars yi loolu moo issi demam bi foofu moom nekkutoon Yaya yóbbu woon sax mu dem disappointment bi foofu la njëkk gis ngeen disappointment bi si campagne bi jam fa wante bi foofu la commencé jamfa yi nak dess na su ngeen gisee kiyate ka cabinet kiyate ka cabinet kiyate ka cabinet xaar leen bañ tànn ay ministre bañ tànn cabinet ni iri risoful cabinet bi façon wax ju ñaaw ju ne di ngeen ko gis biti façon wax ju ñaaw ju ne di ngeen ko gis biti façon yi wax yi kat yu nekk di ngeen ko gis biti man maa leen ko wax fii su ngeen gisee risoful cabinet amagul du jam du maire de maire nekkul maire nekkul fa loolu moo tax reshuffle cabinet amagul léegi luñ bugg a def mooy national assembly election parlementaire election ak élection bi su ñëwee xam nga jekku woon nañ waaye yàlla daf ñu gaaw a parce que gars yi dañ jekku-jekkulu ñu commencé xam seen jikko yi ñu commencé xam seen jikko yi ñoo xam ne nii APRC ñu amoon xeli ñaar waa fooñi yoo xam ne nii du gis ngeen yéen waa fooñi ñu sànniloon Adama Barrow National Assembly élection buy ñëw nii député bu taxaw foofu noonu mu taxawal turi APRC sànnil leen ko ku taxawalu turi APRC bu leen ko sànnil bu ko kenn sànnil bu ko kenn sànnil dama leen a wax loolu de bépp doomi APRC fu mu nekk na won leen ko suma vidéo bi rekoon leen ko ay audio ngeen ayaa janjandi ila fooru moo kono ñii jaru ñooy toppa jaru ñooy def ma mane xam ngeen man daal lu ma gom si réew soo defee loo war a def jàmm fekk la fa soo deful loo war def jàmm fekk la fa waaye nag président moo war a protect doomi réewam président moo war a obligation am pour mu protéger doomi réew mi xam nga waxoon naa leen fi suma Facebook bu romba na le waxoon naa leen si suma Facebook bu romba na ma ne leen coup du jeex Afrika njiit gu bon su jeexut africa ministre yu bon jeexut africa coup d'état du jeex Afrika démb ñaata doom doomi du Guinée Conakry Guinée Bissau ñoo dee Guinée Bissau ñaata bal lañ soqi Guinée Bissau démb ñu fee di wax imbalo nii imbalo imbalo dañ ko jàppoon ñu bàyyi ko général Mendoza moom moo négocié ak gaa yu jàppoon imbaalo ñu bàyyi ko te ba tey escape ba gudde ba tey imbaalo escape du amee réewu Guinée Bissau lu leen naqari naka la Imbalo di ñëwee mu jël diwi Sénégal bi mu dem di ko càpp ay alias in la just last week or oh, two weeks back lañ dégg ne seen parlement bi génne nañ dem nañ si parlement bi ñu vote ñu génn si deal bi lan moo tax ñu génn si deal bi seen yaakaar a tas luñ sentu amuñ ko fa luñ sentu gisuñ ko fa loolu noonu lu sentu gisuñ ko waxoon naa leen coup d'état jeexut de gis ngeen président bu ragal coup defal loo xam ne loolu mooy yoon sa doomi réew duñ la coup d'état soo defee luy yoon kenn du la coup sa doomi réew suñ kontaanee si yow kenn du coup kenn du proteste sa doomi réew suñ kontaanee si yow soldat yi réew mi kontaan kenn du la coup d'état des na de Gbagbo déedéet du Gbagbo Ouattara sorry watara watara mo des di ngeen deg ni kan watara jàpp nañ ko watara di ngeen deg ni jàpp nañ ko aduna afrika fum nek ni dañ buga a ci si loxo français yi français yi ñoo yàq Afrique français yi ñoo yàq suy sobri jon bi ñoo yàq West Africa parce que dañ dee install seen puppet Boris Johnson balaa mu doon nekk prime ministre Angleterre ñëwoon na fii Boris Johnson balaa moo nekk prime ministre ñëwoon na Gambia fii ku nekku nekkutoon prime ministre su ñëwee seet si sa mu nekk prime ministre depuis bu change of government amee ba tey kan mo fi gissati Boris Johnson ngeen xamne angalter ñi ñu colonise sa dañu génnee seen loxo ci ñun amu njëriñ nak ñoo gën ñak ñàkk niw niw angalter Angleterre ko gën a seen government bi waye nak ñoo ñu colonise understand ngeen léegi lu waral angalter ñoom si seen boppa ñu téyende ko xala téyende ñu jël di baksi gis nañ ne Gambia France moo colonise senegal Sénégal moo colonise Gambia réew mu am souveraineté boppam réew moomu noonu soldat bu jógee ko si beneen réew du dugga si sa réew mu téyee sa ay doomi réew mu jëlee leen fi mu export leen diggi bëccëg ndar kamb mu yóbbu leen seen dëkka mu téye leen foofu noonu fukki fan lemu fukki fan lemu sa nguur gi waxuñ ci dara ñu ngi noppi ñu ngi ne teg ñu ngi noppi ñu ngi ne teg America sovereignty loolu lañ la dee njëkka jàngal America xamuñ intérêt si beneen réew ñoom iidal lu baax wala lu bon la seen intérêt si réew loolu la Amérique jiital moo tax Amérique soo nekkee foofu noonu ñoom sooy liggéey ñoom soo jëlee oot soo jëlee seen oot bi lépp loo xam ne nii moo nekk ab intérêt si Amérique moo supersede anything ñoom loolu lañ dee jiital ñun suñ président bi intéressi yi Sénégal la jiital intérêt yi Sénégal lool la suñ président bi jiital intérêt yi Sénégal ñun suñ doomi réew yi suñ leen téyee lan moo tax ñu fal Adama Barrow président lan moo tax ñu fal ko pour muy sàmm well being of our people xanaa ñetti doomi foo ñi yuñ jàppa ñu export leen ñu yóbbu leen Sénégal bokkuñ ci Gambia alkali bu amé ful dëkka luma ful dëkka luma ñu ñëw ñu tié la ñu kidnap la ñu jëlé la fi ñu export la ñu yobul la ci benen dëkk man mané dama damaa soppoon dakana man dakana te kuma gis ku leena a luma lu ma mun wax dina ko wax ci mom pour mu ci Kara Ndiaye loolu mooy problème bi Gambia ñun dañ war a get the fuck out of ECOWAS Mali ñu ngi nii génne nañ ECOWAS Guinée Conakry dinañ génn ECOWAS Guinée fii naka lañ ko waxati dëkk bi naka la ñoo waxati bi bi nafaaso Faso Burkina Faso dinañ génn si ECOWAS very soon Guinée Bissau Burkina Faso dinañ génn si ECOWAS very soon ECOWAS tubaab yi ñoo leen fa install su ngeen buggee dégga dégga lii moo tax Africa pour ñu am stabilité dafa difficile lu naxari nit yi dafa bari lu naxari nit yi dafa bari lu naxari nit yi dafa bari trop yow nga nekk président yaa ngi amee interior minister yaa ngi ame defense minister yaa ngi amee chief of defense staff yaa ngi amee IGP yaa ngi amee head of intelligence office yaa ngi amee head of immigration ñu téye sa doomi réew ñetta si ñoom ñu export leen ñu génnee leen sa biir réew ñu yóbbu leen fii ba Ndakaaru njaay ngeen toog di ŋaan di nelaw ak seen government bi ñi numa ma leen gisee nu ñooy doxee xaw ma lan moo leen jàppade waaye ñii fi nañ lañ leen njaay Gambia is a disgrace Gambia is a disgrace Nekur Gambia sa dis government is a disgrace government this government is a disgrace government is a shameful government yalla ñu yalla musal ci nguur gu mel yàlla na ñu yàlla musal si nguur gu mel nii léegi nag ku nekk sa carte nga am parliamentarian election yi ñu ngi nii NPP commencé nañ di meeting ak doomi APRC yi ñu ngi leen a wax ne waaw may leen ñii chance may leen leen chance Pa Ibu of Talinding demal nga compté si soo luusee ñu xam ne danga luus soo luusee ñu xam ne danga nga luus demal nga conteste Baboucar Mansali loo mun yow yaag Pa Ibou jàppeewu jàppante leen ko ngeen def join haanan haanin haan ngeen téye wante ko ngeen fexe ngeen xeex Talinding ñu recapto Talinding waaw fexe leen ngeen xeex haanin haan ngeen recapto Talinding mitin nag yëg naa seen mitin yu ñoo kurkuri nii yëpp ak mitin yu ñu leen a oo mitin yuñ leen a oo yëpp maa ngi koy te maa ngi monito dégg naa nag paa bu wax nañ la ne nga muñ nga maye. Kansula Souleymane Jammeh of Bundung ñu ne moom itamit na may NPP bu nekk foofu noonu mu conteste bu leen mayee dara bu leen mayee dara dem leen ngeen conteste yi nit ku ne moo bugga dafa bugga lu baax dem leen ngeen conteste yi te su ngeen contesté conteste leen si intérêt APRC yi Souleymane Jammeh nag réew mi yëpp liggéey lañ la xamee ak déggu réew mi yëpp liggéey lañ la xamee ak déggu Blessing Lopy mi yëpp liggéey lañ la xamee képp koo xam ne nii Baboucarr Mansali liggéey booy liggéey Talinding suma area bi fii keneen lañ koy wax waaye du man keneen lañ koy wax sa National Development Office bu nekka fii liggéey yoo de liggéey fii si Talinding fii ba si Talinding school Baboucarr Mansali loolu xam naa ko jàppanteel ak bu jàppanteel ak bu ngeen campagne bu baax a baax a baax man daal nootu alliance léegi bokkatuma si alliance bi génnee naa suma boppa si alliance bi bi seet si wicc bépp doomu APRC boo xam ne nii da nga sànni loon Adama Barrow si élection bii MP Adama Baro suñu ne MP sax ñu bari xamuñ MP député Adama Baro yi député Adama Baro fu mu munti nekk from Katong to Wuli Banna doomi APRC fu ngeen munti nekk bu kenn sànnil Adama Baro eh, député yi bu kenn sànnil Adama Baro député yi si doomi APRC yi kenn bu leen sànnil su ngeen leen sànnilee dinañ leen jël si beneen yoon bi ñoomi la ñoo ñëw ñu fekk fa suma yaay yi wala suma baay ñu jàpp leen ñu yóbbu leen parce que boo da ñoomi bi ñun suñ dëkk yooyu noonu sori wante wut ak kër Séni Gueye ak kër Ousseynou Dieng gannaaw foo ñi lañu mun a téyee nit ñu export ko ba Ndakaaru njaay ay xaaral ma seet kii mu ne you see what I'm talking about this man This hurt me, billahi. Baro, oh, I don't understand him. He is lazy, sleepless Gambia. Uminatu. Uminatu man de waxuma dara de. Mike Mbay Lemon waxon nga mako, MC Chap Jinio waxon na mako, keneen waxoon na ma ko ma toppa Lamin Tamba rek diko ko kool convince si suuf toppa Lamin Tamba diko ko rek di convince si maa ngi ko ne Lamine génnal si lii Lamine Tamba defal nii Lamine Tamba nele Lamine Tamba nii Lamine Tamba nele dama dee kool Lamine Tamba kool ko ba na fekk maa ko convince di ko bugg a convince di ko bugg a convince fu ne wax naa fa ak Lamine Tamba wala laaj leen ko lu maa wax nii lu may wax nii laaj leen ko ko am ngeen lu ma leen yëg bugg a yëgal képp ku nekk APRC mu jiital intérêt boppam mat suma ma yoon nekkul si yow man soo jiitalul intérêt réew mi aw ma si yow soxla jàmma jàmma jàmma jàmma luñ def doomi foo ñi du jàmma so waxee nit ñi ñu ne waaw this alliance is because of we want to reconcile the country this alliance is because we want peace in the country there is no peace in this country or oh, there is no peace in the son of sons of Foni Since 2016, Foni people, they don't have peace. Since 2016, Fonyi people, they are intimidating them, both day and night. They put the Senegalese soldiers there. They are intimidating guy, these guys. They are firing rounds inside Fonyi. So you... Nga day, nga day. Mane, ne ñu bari la convince pour alliance B. xam nga ñu bari ci ñoom dañ fogg ne ñu ne Alpha PDOIS la man PDOIS contrat moo ma fa yóbbu ak liggey suma suba UDP or contrat ak liggey dina dem UDP te dina promo sen agenda man bayyi ken fayd ma ken joxul ma suma dépasse bi man dama liggéey ku ma fay dama dem ma promoter la sa agenda bi be musa saddi si demba orosaan ngeen man dama munta anda dama munta ànda si nit jóge nit jógee ko si beneen réew mu jàpp sa doomi réew si biir sa réew sa président bi mu ngi mel ni muumu ne sa intérieur ministre bi mu ngi mel ni muumu ne ñun suñ inti suñ ministres yi popeti ministre Sénégal yi lañ ñun fan yi rek laa leen fi doon wax officier cérémonial chief of defence staff lañ fi am fan yii laa leen ko fi wax de ma ne leen cérémonial chief of defence staff loolu lañ am mané len ami commandé bi cérémonial ami commandé la fan yi la len ko wax de fan yi la len ko wax xam ngeen luma len leen doomi APRC fu doomi APRC munti nekk génneel sa bop ci ap ci baru man maa leen wax ne génne leen boppa seen boppa si baro député yii di ñëw nii ku sànnil député baro karta xamal ne yaa ngee dooleel Sénégal pour ñu jàpp suñ doomi réew yi xar leen ma dégloo ko woy tuuti

ko munema de do manding ite fanan de do manding ah man tam ma wax jamanka billahi wal kitab képp ko xamni ni hey man yagana di len ko wax suma facebook live yi man ragaluma ben government ben government ragaluma ko xam ngeen lu tax ragaluma benn government defuma waxuma suma yaay defut waxut suma baay defut waxut suma mag defut waxut nguur gu munti toog si réew mi fii te nga may doomi Gambien yi jàmma rek alhamdulillah waaye mënumaa afford nguur goo xam ne nii depuis 2016 ñu ngi intimider doomi Gambien yi di leen jàppa di leen yóbbu senegal ñun nekkatuñ léegi ay citizen ay slave lañ ñun ay slave lañ nekkatuñ citizens motax man wéda la ku tok nga né alpha nga da nga sonal sa bopa man tay muna la taga suba ma saaga la parce que lu so nekké ci si dégga dee maag yow dinañ and ci dégga ji waye so nekkul si dégga parce que lolu motax man dama independent, independent guma independent motax may xey di dem di ñëfé ji motax du may dem di dogo dogo ji independent guma independent moo tax su ma xëyee suba maa ngi wër fu ma su ma bi midi fum mu tooyee waaw dama uti fu suma ceeb bi midi di tooyee man yaakaareewu ma ko si nguur yaakaareewu ma ko si ministre yaakaareewu ma ko si political party leader yaakaareewu ma ko si kenn xam ngeen su ma ko yaakaare allahu rabbi buur bi yàlla si moom laa ko yaakaare moo tax ku foog ne tey dinaa la sabaral suba dina la toñox kané suba dina la toñox kané waaw man ñu bokkoon di di encore nit di si alliance bi si la bokon waye yalla ñu yalla musal si façon alians alliance bi bi medini, yawmi dini yalla ñu ci yalla musal si Gambia ji alliance bu mel ni yalla buñ ko amati si aduna bi ci suñu rew mi ñun téye woon nañ fi doomi elaraar xaw ma fii waaw elaraar buñ ko téyee ñu dóor ko ñu téye ko ñu fetal ko si biir néegam loxom bi dama ñu jàpp ko ñu yóbbu ko Tambacounda ku loxom dama ñu yóbbu ko Tambacounda ñu ceene ko ñu handcuff ko ñu boole ko ak lal bi ñu ne deeta waay ñu duggati fi jàppati ñeneen yóbbu ñu ne deetawaay ñu jàppati fi benn xale si biir géej gi ñu yóbbu yëpp Gambien musu ñoo dégg président bi wax ci musu ñoo dégg ñu ko jege wax si ñu toogati ñu ne deetawaay ñu ñëw ñu dem ñu mbokkante ak rebel yi rebel yi foonal leen gat bu leen rebel yi foonalee gat ñu jógee foofu noonu ñu gis ay doomi fooñi yoo xam ne nii dañ demoon si seen tool yi ñeneen ñi ñu ngi woon ci biir fooñi gi ñu dem ñu jàpp leen ñu jàpp leen ñu export leen ñu yóbbu leen ndakaaru njaay suñu waxee ñu ne foo fooñi dañ bugg a déstabiliser dëkk bi fooñi nekkuñ doom yoo xam ne nii fooñi gom leen yàlla yaaya jàmme nekkatut fi waaw gom leen yàlla xam ngeen lu xew foo fooñi dañ gisagut ku tane yaayaa jàmme foo ñi gisaguñ ku tane Yaya Jammeh foo ñi nit ñoo xam ne lañ di a very peaceful Yankuba Kujabi mu ne di alkalo is my uncle kolal ma ko nga ne ko bëgg naa dem ma interview ji ko ma laaj ko ndax sénégalais yi dóor nañ ko wala dóoruñ ko kolal ma mako nga laajteel ma ko loolu foo ñi they are very peaceful nit yu ànd ak seen sago lañ nit ñu kaam lañ fooñi depuis 2016 ak tay fuñ jaarale fooñi keneen kuñ ko jaarale woon riveñ bu métti moo doon am si réew mi fii waaye defuñ ko ñu ngi toog rek ñu ngi muñ ñu ngi toog rek ñu ngi muñ ñu ngi toog rek ñu ngi muñ ñu ngi toog rek ñu ngi muñ ramaane ko waxoon ñu ne la ne Barrow bitile yàlla bu leen ko sànni kii he is not capable bu leen ko sànnil kii bëggul réew mi bu leen ko sànnil waaye ñu ko jege dañ laa wax ne waa ji dafa love country for heart dafa am dafa love country in heart Barrow amoon ñu ko dimbale Barrow amul ñu ko dimbale baro moo bëggut a dimbale boppam baro ñàkkul ñu ko dimbale moo bëggut a dimbale boppam gis ngeen sa gàllaay lu mooy bañ nga xalangu si ko am sa gàllaaj sëriñ mun na laay liggéeyal gàllaaj bu foor gàllaaj bu baax ak gàllaaj bu munti doon waaye lu gàllaaj gi di bañ daal nga xalangu si ko am loolu mooy wax ji am na ñu bari ñu ngi ma laaj ana exécutif bi fii ñu ngi binda di ma laaj where is your friend Rambo Rambo mu ngi fi mu tey la gën a nekk suma xarit Rambo tey la gën a nekk suma xarit Rambo soo gisee génnul kan moo xam ndax Rambo dafa am disappointment si Adama Barrow kan moo xam ndax Fatoumata Fabakary Tombong Jatta nu ma amee disappointment moom it noonu la amee disappointment doomu aadama mutut doomu aadama mutut man suma conscience lu ma may xëy na keneen mayut ko man mun naay toog tey ma juum ma génn si social media bi ma wane ne dama juumoon man mu naay toog tey ma gis lu ma neexul ma génn si social media bi ma ne maa toppoon fii toppatuma ko lii moo taxoon ma doon topp foofu banaa ko baal leen ma àqa onosaan ngeen waaye yëpp wax ji dem na ñëw ne yëpp Yaya Jammeh nekk na si nguur ñaar fukki at ak ñaar Yaya Jammeh nekkam nguur si ñaar fukki atam ñaar gi minista mënut koy kataa kenn mënu koo kataa ñoom Mohamed Bazin yëpp jéem nañoo kataa Yaya Jammeh mënuñ ko Yaya ku ne jéem na koo kataa mënuloo ko understand ngeen ku nekka bugga koo kataa mënuloo ko Yaya lu mu gisoon ba mu toog Guinée équatoriale mu toog ba last minute mu ne bu leen ñi ñii government bi MLS government la bu leen leen sànnil Yaya Jammeh xam na lu xew de yaaya jàmme xam na lu xew dafa gisoon luñ gisut yaayaa jàmme lu mu gisoon ñun gisuñ ko parce que tey yaayaa jàmme ñun ñu nekk fi yaayaa moo ñu gën a bugg a jàmma buñ toogee yaayaa tiyaanaar si wax ju bari jeeg yépp yaayaa jàmme ngeen si gis recommendation beeg everything yaayaa jàmme lañ ci gis kooku si toogee ba mu ne ak luñ munti wax si suma affaire ak luñ munti def si suma affaire du tax ma support leen génnee naa ci suma bopp luñ munti def ak luñ munti wax si suma mbir su fekkee dañ maay sentence one million yees sax génnee naa ci suma bopp alliance bi moom man ma ci man yaayaa bokkuma ci supportuma ko yéri jéeri jàllo jéeri naka nga def nag mbaa defuloo dara nama naa laa si loo nekk nag nama naa la torop torop torop torop yow xam naa su ma paree live bi foofu lañoo ñoo jekkali waxtaan bi si téléphone bi su defee ñu bañ lal si téléphone bi maag yow jàllo jéeri understand ngeen yaayaa jàmme ak lépp lu munti xew mu ne luñ ma mun munti def suñ maay xang mari dee sax nguur gi moom soppatuma leen soppatuma leen nañ ma xang ma dee nañ recommande seen TRRC bi nañ recommend seen nañ génnee white paper Jaane commission bi I don't give a shit I don't give a shit Yaya Jammeh loolu la wax waaye si dëgg de ma ne bàyyi leen di ma bindal économique these people they are not économique they are Senegalese soldiers Souleymane Bayo these people they are Senegalese soldiers ñii duñ économique xam ngeen lan la gaa yi dee def logo ECOWAS bi lañ dee jël di ko tay si seen moto yi logo ECOWAS bi rek lañ dee jël di ko tay si seen moto yi they are operating like ECOWAS but they are not ECOWAS waaw du nekkuñ ECOWAS waaye man de wax dëgg moo neex yàlla maa ngi jégalu Gambien yi yëpp su ma lu ma encourage yenn doomi APRC pour ñu sànnil Adama Barrow parce que mes buñ nekk nii participer naa si bokk naa ci mess buñ nekk nii bokk naa ci gannaaw ku demoon si TRRC bi suñ la laajee ñu bu ñu weree nit ñi soo taxawoon si sa moto bi nga def nii sax ñu ne la ne you are responsible you are part of you are you are part of those who kill the man your responsibility is there then my responsibility is there because I convinced so many people. I convinced so many people to vote for Barrow. rusuma ko wax de man degal rek moo ma fi tek yalla nak mo bëgg a te dégg du toj noppa du toj bopa ñu bari la convince souf di wax ak ñom billahi wal kitab ñu bari ñu nekk Westfield Amna yena maire jola yo xamne ni demba dañ doon laqatu suñu ma gisee dañ doon rus bu baro wi ne election bi dañ daan rus suñ ma gisee dañ dé melni ne tour ndox bu sédd dañ dé dem waaye fan yi nak man nak man suma leen gisee man tamit dama dé né moset moset rek ma mel ma mel jarax buñu génné ci biir ndox yi galas dama dé né mboset mboset rek ma mel jarax juñu génné ci ndox yi ndox yi galas rek man ma rombalé parce que xamatuma luma leena layal <clears throat> luma leena layal xamatuma ko kunda naka ko waxe sa haral sama commencé limbi APRC Banjul APRC KMC APRC West Coast Region APRC LRR CRR CRR North APRC North Bank APRC Gambia Bay two four corners of the country this parliamentarian election buy ñëw nii ku sànni député Adama Barrow yi dinañ fi voté loi boo xam ne nii dinañ annexe Sénégal dinañ annexe Gambia to Sénégal dinañ annex Gambia to Sénégal yàlla du juum moo taxoon si foos term bi amuleen woon député yi hundred percent amuñ woon député yi ñii suñ amee député yi hundred percent comme majorité bi ñu am ko réew mi nañ leen ñu bàyyi suñ xel de nañ leen ñu bàyyi suñ xel nañ leen ñu bàyyi suñ xel opposition bi tamit da ngeen gëri di buggu leen kenn jiite leen buggu leen kenn jiitu keneen ki opposition bi waaw fii ngeen toogoon amu leen benn njëriñ ngeen toog ba ñàkk a bi Essa Faal di fooxar fooxari fale waaw naka lañ ko waxati nootu alliance bi naka lañu ñoo waxati nootu alliance bi kii waajooju noonu xaw ma yaayaa Tamba moom tamit lexam yu woowu yooyu noonu mu ngi mel nii su ma waa ji butali gom fale moom itamit ñu gis ko mu ngi yoot fale mu ngi mel ni gëlëm gu màggat waaw ñu toog fale gis Mama Kandeh moom itamit di yoot nu ngeen defoon ba ngeen booloo ngeen dem si fa si ko Ousseynou Dabo su ngeen ko boolee woon ko doon génnee fi nguur gu bon gii nu ngeen defoon ba booloo ba génnee fi ma be dem ko Ousseynou Dabo waaye da ngeen añaan buggu leen kenn si yéen jiite ngeen toog ba mbir mi yàqu ngeen yéen a ngi xabar xabar yi ni ay mbaam yu dof ngeen a jóg di dem waaw yéen a ngee xabar xabar di dem Essa Fall di dofale di yor ak kosam bi foofu mel ni xonxonet waaw ah suma waa ji Mama Kande yi di yor fale Yaaya Tamba di yor fale nekku leen woon benn de waaye bu mbir mi yàqoo seen loxo ngeen ne da ngeen a nekk benn ngeen dajee ji kër honorable Ousseynou Dabo ngeen dàq élection bi lan moo tax mënu leen woon a daje si élection bi because of greediness and selfishness because of what seen own interest loolu moo tax waaw mu dëggal yanko ba kiw yaabi mu ne yaaya tamba is yoo faada suma papa joju de moom bu ma ko gisee mu mel ni gëlëm gu màggat yaaya tamba fu mu ne nii moom itamit loo wax yaaya his tamba rek mu ne aha aha his excellence yaaya tamba odli yi ñu ne ko na boos ila mobile dina jang ila mobile o dina jang so taxa toogee na moom moomin mu firi a bam googu noonu mu toog mu mel ni buuri tan hmm? bu lu ngeen waroon a def si beginning bi loolu ngeen mujjee loolu ngeen mujjee waaw bu ngeen toogee ba élection bi yàqu ba everything yàqu ngeen ne yéen a ngee def solidarité yéen a ngee jéem a unite pour ngeen xeex Adama Barrow fekk xeex romba na fekk a xeex rombana because of lan selfishness greediness kenn bëggul sa moroom jiitu la léegi nag ñàkk ngeen élection bi ngeen ne nañ leen ñu dem këri honorable Dabo gannaaw léegi Mr daabo fu ne nii dafa gaañu si tànka ñun nañ leen ñu dem ñu fekk ji ko parce que kilifa la gisul leen démb gisu leen woon ne kilifa la démb gisu leen woon ne kilifa la Mr Dabo itamit ndax gisutoon ne moom it démb kilifa la mu ooleen yéen ñëpp mu ne kaay leen ñu waxtaan ñu seet naka la get rid of this bad government here Mr Dabo tamit booba la waroon a mu ne kilifa la xaaral ma o opposition bi ñu get rid of these bad elements this bad government this unpatriotic government this